ba ci équipe nationale bu Sénégal bi war a jàmmarloo ak Équateur bàyyiwu ci lan fa mu commencé mooy Aliou Cissé mi nga xam ne Mamadou Ibra Kane nee na Aliou Cissé xam ne Équateur te na xam ne schéma tactique bi nga xam ne moom lay andi ngir gagné waaye nag bu Sénégal gagné yi nga xam ne moo ci des yëpp ay final la te lenn lu nekk mën na am moom Mamadou Ibra Kane daat nay wax ci ñool ñool ji nga xam ne moo dox diggante groupe E-Media ak ñi nga xam ne ñuy waa RTS ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci Sénégal amee moom li mu jàpp moom na ne RTS dafa def maanaam daat nay song ñi nga xam ne ñooy waa sénéra nee na sénéra jamono ji maanaam warutoon a moom njiitul groupe E-Media daat nay wax nag li nga xam ne moo leen jotalee ak RTS ndax moom dafa jàpp ne sax dafa tooña groupe E-Media ci lu jëm ci li nga xam ne moo aju ci coupe du monde bi ndax nee na ñi nga xam ne ñooy waa FIFA ñoom dañoo taxawal nag ab agence agence boo xam ne moo organisé woon lu jëm ci wàllum appel d'offre bi fii ci Sénégal te ci biir appel d'offre boobu ngir wane coupe du monde ma nga sa woon a ma a Sen TV ma bi jeexee ñun ñoo gañe mbir mi te loole nag ñi nga xam ne ñooy waa FIFA dañu ko daal dëggal jaarale ko ci ab leetara moom Mamadou Ibra Kane wax na ci lu jëm ci mbiri Pape Alé Niang nee na jàpp gi ñu ko jàpp dañu ko jàpp ci e liggéeyam te jàpp gi nag tegewul fenn moom journaliste bi nee na Sénégal amul sañ-sañ di deltu ginnaaw ci lu jëm ci wàllum démocratie lu soxal nag mbirum 45 milliards yi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñu jëndee ay arme nee n nag kenn ci ginnaaw secret défense ngir nag luubal na bras de fer ne ci lu jëm ci commerçant yi ak ministère bi ñu dink wallu njënd meeg njaay mi ndax ba léegi gars yi dañoo lànk kandaare bañ a wàññi njëg yi yéen kaay gii di las nee na kuréel gi ëmb taskatu xabaar yi ñoo ngi dox ngir ñu daal di libérer Pape Alé Niang yéen kaay gii di réew mi quotidien nee na alliance ànd gësama demaat nañ ci ab grève ñaari fan yéen kaay gii di vox populi nee na assemblée nationale démb tàngoon na jër ba fa ministre de l'intérieur di jaar ngir nag ñu daal di koy voter ab budget bi nee na assemblée démb ak réero ndax député APR bii di Ami Ndiaye ñii moo fa attaqué Serigne ba sedd loole nag metti député yi nga xam ne ñoo bokk ci kujje gi rawatina député yi bokk ci pur moo tax ñu daal di bloqué mbir mi nag daal di koy wax ne da nga jéggalu ci nii wala ci naa te boo jéggaluwul maanaam travaux yi du continuer député bii di Amy Ndiaye Gniby lànk ba tëdd sa naaj wa wax na du jéggalu loole moo tax mbir yi démb dañu ko mujjee bloqué tey jii lay commencé waat waaye nag député Abbas Fall wax na lu leer Amy Ndiaye Gniby nee na Amy Ndiaye Gniby bu taxawul ci assemblée nationale daal di jéggalu fii moom xawma lan moo fi am waaye nag ay liggéey du fi am loolee nag dama bëgg mu leer nañ journal bi nee na vote budget ministère de l'intérieur tey jii lay commencé journal bi di évidence nee na député opposition bi démb lu ñu waxul Antoine Diome dañu ko fàtte wax nañu ko ci lu jëm ci ñàkku kaaraange gi nga xam ne mooy jaabajonge ci réew mi waaye tamit wax nañ ko tere marché gi nga xam ne moom la dëkk te ko ci yoon ak répression bi nga xam ne moom lay def ñi nga xam ne ñooy faral di wane seen naqara wax nañu ko tamit ci lu jëm ci wàllum fichier électoral bi ak nag ñàkk wóolu gi nga xam ne ñàkk nañ ko ko wóola yéen a gi de Le Quotidien nee na ministère bi ñu dénk kaaraange réew mi budget bi dañu ko daal di yokk yokku nañ si lu jege 149 milliards Antoine Diome ni ki wax na ci lu jëm ci exploitation pétrole bi ak gaz bi wax na tamit ci Sénégal ni mu taxawee ngir xeex lépp loo xam ne aju na ci wàllum terrorisme yéene kaay gi di 24 heures nee na samedi ji nga xam ne moom la ñu génn ca assemblée nationale ministre Mansour Faye ñu dénk ko wàllum dem big dikk bi moo fa jaaroon ngir nag ñu xaymaal ko ab budget ma waaye nag Guy Marius Sagna attaqué na ko ndax Guy Marius Sagna nee na Mansour Faye mi daal dafa détourné dafa luubala dafa sàcc lu toll ci 85 milliards aju kaay gi di Rewmi Quotidien ak L'Observateur ñu xëy di ñu xibaar naan ñu Toussaint Manga mi nekkoon PDS jamono ji ma nga Pastef ndax nee na ci Ousmane Sonko la am xel mu dal ne mën naa jubbante Sénégal yéen kaay gi di enquête nee na force de défense et de sécurité yi seen salaire yi yokku nañu ko yéen kaay gi di Le Vrai Journal nee na Amath Suzanne Camara mii nga xam ne ci APR la bokk moom dafa mel ni lu ko neex wax ci réew mi te dara du ko ji fekk ndax Amath Suzanne yàgg naa wax ay njombe kenn jàpp ko maanaam kenn inquiété wu ko ndax moom Amath fii la taxaw bëccëgu dara kam am ne Ousmane Sonko dañu koo war ray rey te dara fekk ko ca ñu ne déetuwaay fan yi ñu génn Amath Suzanne Camara dañu koo invité ci télé nee na gendarme Fulbert Sambo ak Didier Badji ñaar ñi dañu leen a rey loole la Amath Suzanne Camara wax journal bi nag nee na Cheikh Omar Diagne ak Karim Xrum Xax mii nga xam ne moom la ñu dugal ci kasu bi lii nga xam ne moom la Amath Suzanne Camara wax moo gën a garaaw fuufa ndax nag taxaw fii ci réew mi naan Fulbert Sambo ak Didier Badji dañu koo rey loole nag lu garaaw la yéene kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy samp ab laaj nee na Fulbert Sambo maanaam dafa faatu ci accident wala dañu ko rey li ca am ba desal mooy soxnaam nee na Fulbert Samb waxu ko benn yoon ko damay dem géej te li doon yóbbu géej ma ngi ci kër gi yéen kaay gi da lay zeko xëy yóbbu ñu diwaanu Qatar nee na nag soo muy tuulee farandoy Matar Ba yi ak farandoy Yankoba Diattara yi danañu yàq coupe du monde bi ndax pro Matar Ba yi ak pro ba Yankoba Diattara yi jamono ji nag ñoo fay xuloo ñoo fay giita ngas ci lu ci ay biee esat nee nañu sax